fii ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew fépp fu ngeen mën di nekk ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci bàyyi xel gi ngeen ñuy euh, bàyyi xel rawat na ci seen émission sur la question euh, ci seen euh, site web 24actu.com tey ji nag ñu am mbégteem dalal jëwriñ joo xamante ne ñu ngi koy wax Baye Fall Mayomba loolu nag tur bi yaakaar naa bu ñu ko tuddee ba suñu xel day dem eh, ci réew mi nga xam ne moom moo di Gabon te Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul defoon fa ay at yu takkoo takku waaye itam liggéey fa liggéey bu rëy boo xam ne eh, kenn mënagu koo génnee ci eh, taarix mais xam na laataa ñuy dugg ci li nga xam ne moom moo jëm ci liggéey bu am solo ba nga xam ne ñoom taalibé murit yi ña ngi koy def foofule ca Gabon ak tey jii li nga xam ne moom moo ko fi indi muy caravane sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba dañ koy bàyyi moom bàyyi Baye Fallou ba mu nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo koy seetaan Euh, ci a la question. aousubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa kun muy san lana min sarri ma sarri famin wa sarrin ayni yàllaahu wa sarri sirin wa sarrin xalqi imsihimoo ma jinnim wa sabatin sàmmi yàllaahu euh, mbokki auditeurs yi dikk nañ fii ànd ak site web bi tudd 24actu point com bëgg leen a indil rek euh, ay taxawaay yu jëm ci Mayomba ak nekkinu taalibe ak it nekkinu sénégalais nekk ci réew ma yépp ah, bëgg a waxtaane lu jëm ci caravane sur le trace de Cheikh Bamba au Gabon mm-hmm. ñi ngi leen di nuyu di leen siyaar mm-hmm. di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa Mbàkke moom Xaadim Rasul jàmbaari lislaam jooju di ci teg ah, sëñ Seex Jëmb Fall mi nga xam ni moom jaraafam la doon jàmbaaram nekkal fii maam Cheikh Rahim Fall ak sëñ Cheikh Ndigal Fall suñu wasila wa salaamaaleykum wa rahmatulah. Eh, jërëjëf Baye Fall euh, Mayomba sànq wax naa ko ci sama biir wax bu ñu tuddee euh, sa tur rek yaakaar naa xel yi day dem ci li nga xam ne moom mooy étiquette bi nekk ci biir mooy ba te ku ne xam ne Serigne Touba dafa def foofale ay at yu takkoo takku liggéey fa liggéey bu rëy euh, jamono ji ngeen nekk ci troisième édition caravane sur le trajet Cheikh Ahmadou Bamba caravane boobu naka ngeen def ba xalaat ko ak lan mooy sabab si ak lan moo ko tax a jóg. waaw soxna Awa maanaam karawaan bi euh, li tax ñu xalaat ko dafa mel ni murit bu nekk euh, ak dundam li muy dund sëñ bi loolu moo koy éclairer tamit fi muy jaar ba lu war a defal sëñ bi rek su jotee da koy yëkk mm-hmm. ndax ren ji moo nekk sama vingt cinquième année ci Gabon mën naa wax ni def naa 35 ans Afrique centrale entre Cameroun ak dëkk yi fa nekk yépp mm-hmm. waaye Gabon moom bi moo nekk sama vingt cinquième année yàlla dogal nag 1895 la ñu yóbboon sëñ Touba Gabon. Mm-hmm. dañu wax ni trois mois rek la am ci Libreville ñu yóbbu ko Mayombe mu sax fa juróomi at ci île boobu nga xam ni. séquestration lañ ko fa defoon maanaam dirub juróomi at yi ku yàlla bind ku nekk fii ci Sénégal xamoo ci sëñ bi lu leer loo mën a wax. Mm-hmm. loolu nag yàlla def nag ñun 1995 cent ans yi fekk ñu Gabon. Mm-hmm. ma bokkoon nag ak ñeenti nit ñoo xam ne ñun dañoo àndoon jóge Libreville dem nag di bëgg a marqué ji ndamul sëñ Touba loolu ndax ku ñu yóbbu woon. Mm-hmm. ngir naxasaayal sa yëf. ci ni ko nasaan bi waxee woon mel ni bu doon ni garab la daal daf tasaare tong dongo yeeg jal bi mm-hmm. bu ko defee kon kooku suñu toogee ba cent ans nag euh, ñu ay taalibeem jóg def 819 kilomètres de Libreville à Mayumba mm-hmm. euh, biñ demee yañ ca gisee ci loolu euh, ci la ñu tàmbalee di def ay xalaat mm-hmm. yàlla dëppale ko nag ak ci 1800 ci 1993 sëñ Murtada Mbàkke ñëwoon fa jiital jëmm ju ñu wax sëñ bu so mu doonoon visionnaire bu mën a liggéey ci biir liggéeyam boobu nag dama koy tënk rek ci nu mu gàttee mhm. mu liggéey ci liggéeyu yaatu yóbbu sëñ Murtada en 2000 Mayumba mhm. euh, borom réewu Gabon aloon ko avion may ko fa ay suuf ci mayom Mayumba mhm. waaw loolu nag bi mu ci doxee euh, moom liggéey bi xaw a yeex ndax Gabon yombul ndax distance yi gis ngeen ni mu demee moom sëñ bu so nag mu reculer waat ñaan njiitu réew mi. Mhm. lu gën a jàpp ndalal sénégalais yi nekk foofu moom président bi may ko 200 nationalités. 200 mhm. nationalités yooyu nag ci la sukkandiku taxawal benn ONG boo xam ne mi ngi tudd renaissance de l' espoir. Mhm. ndax kenn ku ne xam ne ni gan dafa am ay limites ci réewum jàmbur. léegi nag bi bi nga xamee ne ay nationalité am na ñoo xam président moo ko décrété nag. moom mu taxawal nag ONG boobu sukkandiku ci ONG bi nag. bëgg nag fépp fu sëñ Touba jaaroon rek. moom moom mu dem ñu samp fa dara. Mm-hmm. ndax kuñ kuñ mayul woon nga samp ñeenti bant. kon su ay taalibeem bu ñu farloo. Mm-hmm. Ah, eh, dem ba am ay nationalité. Mm-hmm. loolu bu amee téeméeri at kon war nañ koo laaj war nañ koo sonne. Ah, loolu nag bi mu amee ci la. sëñ bi taxawal ONG boobu première kii bi ci njëkk am moom mooy RFI ci boppam ñoom ñoo dépêché seen benn journaliste bu ñu naan Yves mu ñu ànd sëñ ci ndigalu sëñ Fall Boussa wër naa pendant une semaine maak moom ci jaar-jaar yi sëñ bi demoon mhm. pour mën a identifier site bi mhm. muy ci na muy ci njole muy muy maayomba te ñu ci bari dégg-dégg lañ ci am waaye amuñu ci lu leen leer lool. du ko mhm. defee yooyu nag. Mhm. Euh, ci la idée wu taxawal caravane sur lu tax de Cheikh Ahmad Bamba. Mhm. Euh, amee euh, ci ndigalul sëñ bu Bousso waaye yàlla dogal nag. moom sëñ bi taxawal na lépp mettre na lépp sur ci yoon bi. waaye yàlla dogal mu génn àddina. bi mu génnee àddina ñu ngi koy ñaanal sun borom yokk ay leeram waaye nag. objectif bi mu amoon dafa waxoon ne sëñ Modou Moussa Mbacke mi taxawaloon jumaa ji. fii tey fekkewu ko waaye nag. nañu fondement sëñ Tuubaa loo xam ne lu yàgg-yàgg mhm. euh, dañuy ñëw rek di teg ci kaw fondement bi waaye fondement bi du daay moom mooy fondement ko ci ay këyit fondement na ko ci former ay ñoo xam mhm. sonn nañ ci ba xam barab yi sëñ bi ne woon ak yu baree bari mhm. su ko defee nag kon li ci des rek moom mooy finaliser loolu léegi nag ONG boobu moom moo créé li nga xam ne moo di caravane bi ba def ci trois éditions waaw ONG boobu nag ñoom ñoo créé euh, caravane bi biñ ko créé euh, première édition bi dañ ko defoon édition nationale. Mhm. moom mooy ñu ànd ak ñi ci dëkk bi yëpp rek topp barab yi ba ñu xam ko fexee tamit ñoom ñëppit nag. Mhm. ñu xiir leen ci nag gis fi ñu doon jaarale sëñ bi. Mhm. soxna awa barab yi nga xam moom lañu doon jaarale sëñ bi très particulièrement Mayumba boobu ñuy wax. il bu doy waar ba tey jii barab la boo xam ne ku yàlla bind dëkku fa. te ndox mee ko wër ci côté amul fenn fu nit mën a jaar ba dugg fa te ku fa dem xanaa yaag rab ya rek yéen a fay fanaan wala ngeen di fa yendu ba ci ñii di dem ci caravane bi sax ku fa demit yaag ñoom rek yéen a fay nekk hmm. bu ko defee nag kon loolu na ba léegi kenn du fa fanaan ba léegi ni kenn dëkkul ci bi waaye dafa am dëkk boo xam ne da ngay traversé ndox mi dem ba nag foofu la hmm. administration bi nekk ak woon sëñ bi moom nga xam ne mooy mission catholique boobu hmm. nga xam ne feeñ na ci waxe sëñ Moussa Ka mu naan labbee naan ko Bamba yaa di ndaanaan foofu ko labbee doon seetloo Euh, barab bu doy waar la boo xam ne euh, ku ko melal daal euh, vraiment foofu mënuñu faa yóbbu nit jëlee ko fii mu dem dund foofu lu mat juróomi at. waaw foofu fa lañ doon wax ne fa la yooyu ni indi ay maladie du sommeil nekk ak yooyu wala du foofu. waaw dañu wax ni xam nga maladie du sommeil bi ñi ngi ko ñi ngi ko gën a ràññee ci dëkk bu ñuy wax làmbari Lambaréné. Ah. moom moom it beneen étape la boo xam ne après Mayomba nit ñi nag ñi ngi def confusion ci di wa ñii nee nañ ba moo njëkk ñii nee nañ na moo njëkk. Mhm. waaye leen lu ci nekk tamit ki nga xam ni moom moo koy wax. Mhm. war na ko wutal aw lay. Mhm. ndax dégg-dégg rek doyu ci maanaam Mayomba sëñ bi ci boppam kenn ku ne xam na ni objectif tubaab bi moo doon génne ko ci réew mi. Mhm. yóbbu ko fu ñu ko mën a séquestrer responsabilité yi nga xam ni nag gouverneur bi ci ndar amoon na ko. Mhm. pour mu jeex ci ay responsabilités il fallait que mu yóbbu ko ba Brazzaville. Mhm. su ko defee Brazzaville fa la kilifa ñi nga xam ne moom moo yor booba territoire Afrique centrale nekk. nga xam ne boo déggee sëñ Moussa ni mu ko waxee sax ne mi ngi naan jaar na dëkk bu ñu naan Banaana jaar Booma jaar Matadi. jaar Londima ma a dem Brazzaville. Hmm. bi mu demee nag kooku nag moom moo décidé ni nañ ko yóbbu Gabon ndax Gabon ba tey jii may wax ak yow population bi yëpp il est estimé à 2 millions de personnes. Hmm. te suufu Gabon mat na Sénégal ñaari suuf te lépp forêt la. géographiquement moom dafa xaw a dafa waaw mu doon barab mu doon fu doy waar. su ko defee loolu nag moo tax moom ñoom bi ñu ko yóbboo Brazzaville ñu indi ko Libreville ñetti weer ngir nag di choisir nag fan lañ ko mën a yóbbu. bin seetee barab yëpp fi ci gën a enclavé nga xam ni difficilement la fa nit mën a dem te gaal rek moo la fa mën a yóbbu te booba jamono gaal yi moteur amut. Mhm. gaalu njoow nga war a jaa yóbbu nit cent 819 kilomètres di ko joow ci gaal yi looco lañ jëlee sëñ bi libre Libreville ba Maayomba. bi ñu demee nag bi ñu ko dencee ci île boobu tey jii euh, ba tey jii île bi amul vingt changement. Mhm. ndax ña ña nga xam ne ñoo fa woon muy làbbe yi Euh, ñoom sax mënatuñ fa dëkk ba bandale nañ île bi fii mu ne mm-hmm. kon mu mel ni nag ilu Mayomba boobu nag nga xam ne fa lañ yóbboon sëñ Touba téye ko fa juróomi at tamit xew-xew yu baree bare dafa am. Mm-hmm. te booba tamit Brazzaville doon nañ affecté ay sénégalais. ci ilu Mayumba boobu. muy ñi ngay dégg rek ñu mel ni ay di tudd ay duru tur Doudou Mbaye comme ñu mel ni Yelli Seye ak ñeneen ñoo ñëpp ndax kenn ku ne xam na ne administration français bi. Mm-hmm. de Brazzaville à Dakar fépp. ñoom booba ñoo ñu colonisé. Mm-hmm. ñoom ñooy affecté ndar daan affecté ay fonctionnaires Brazzaville. Mm-hmm. Brazzaville di affecté ay fonctionnaires ci Gabon. bu ko defee nag kon ñooñu nag ñoom ñoo ñi nga xam nag doon naan jamononte ak sëñ tubaab foofu ci Gabon. di gis li tubaab bi def leen teg moom yëpp léeg-léeg sax am ñu révolté. comme ku mel ni yéen say naan li ngeen koy def jaaduwul tegu ci aw ci aw yoon. maanaam di ci xëccoo lu baree bari. léegi caravane bi nag jaar jaar yooyu yëpp ci lay moom lay def dëkk bu mu dem bu ñu fa demee lan lañ fay def. Euh, nga xam ne ñu ngi ko prévoir euh, ci le 18 juillet 2019 bi 18 juillet boobu. dañuy ndax comme distance bi dafa sori dañuy teel a jóge Libreville mais balaa ñu faa jógee dinañ jàng alxuraan ubbeeku liggéey bi. Mm. waaye Libreville bu ñu fa jógee entre Libreville. ak Mayomba fi la làmbar na ne. Mm. kon buñ ñu déparé Libreville daal li nga xam ne moom la ñuy def bu ñu dawee ay lu toll ci ay 200 kilomètres foofu la ñuy war a wàcc nag def petit déjeuner maanaam ndékki fa. Mm-hmm. ndékki fa ndax yoon bi dafa sori fokk mu am ay arrêt. Mm-hmm. arrêt boobu buñ buñ ko jàllee. Mayomba moom lambar na moom ci allée bi duñ fa taxaw dañ ko dañuy continuer. Mm. dinañ juste rek ñu fekk taalibe ne ca dëkk ba. Mm-hmm. ñu ci benn escale bu ndaw ñu jox ñu ay café Touba ak yooyu ñu naan. ñu wéy nag ci beneen deuxième étape boo xam ni muy laa la tudd. beneen province la foofu tamit am na nay taalibe feñoo ñu fa nekk maa ngi profité jolo di remercier ñoom sëñ Xaadim Fall ak ña fa nekk mhm. ñëpp mhm. maanaam ñoom buñ foofa tamit prévoir nañ fa la ñu war a defee euh, añ bi nag mhm. su ko defee nag ndegam daa sori ndax 819 kilomètres ñu door a wéyal nag jëm jëm ba loolu ci alxames bi lay doon nekk le 18 juillet alxames boobu nag euh, bu nu àggee Maayomba lu mu guddi guddi te it ci cours de route bi yëpp dinañ prévoir bis yoo xam ne ñi ci nekk ñëpp durus xasida la ñuy def ak bis yoo xam ne ñi ci nekk ñëpp jàng alxuraan lay nekk mm-hmm. ak bis yoo xam ne ñi ci nekk nag ñoom animé ci yëkkati njàngum xasida ndax dañuy mm-hmm. invité yi jàngati xasida yu mag yu mm-hmm. ñëw bii weesu sañ ak saa moo ñëwoon voilà bu ko defee kon euh, noonu la ñuy àggee Mayumba bu ñu àggee rek duñu yëg sax ab coono ndax dañuy agsi rek yëg ni fii la sëñ bi demoon muy taw ci moom mhm. yëg ni fii la sëñ bi doon waajale xasida yi fii la binde jaalibatu muraqib yu mel noonu mhm. nga xam ne kon coono bi li muy mitti mit duñ ko yëg dañuy àgg rek daal di mhm. enchaîner nag bu ñu reeree rek druskati xasida yi dem jàngkati alxuraan dem ba ñu def lu war a mën ay deux heures de temps yooyu. Mhm. ñu dallu nag bàyyi faale nag yëkkati sikkar si. sikkar si moom dañ koy fanaane ba asamaan set. kon loolu moom mooy loolu moom nga xam ne dinañ ci jaar ci guddik ci bisu. alxames bi waaw mhm. Mhm. léegi après àjjuma bu ngeen xëy dañuy dañuy dem euh, jaaraat ci yoon bi ñibbi wala dañ fay toog. def ay nag mooy bis bu mag bi nag. àjjuma kenn ku ne xam ne soxna Awa. Euh, Baaru Maayomba. foofu ci la Maayomba. Euh, dafa am xew-xew bu rëy bu fi amoon. ndax foofu la nasaan yi gase woon ak kàmb gu xóot taal ko. ba mu tànk ñu jël jëmmi si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ju dugal ko ci biir. doo demee ci xas day sëñ baa ngi koy ma ngi koy melal. naan axaasaani alxanaanu kay di man xalaa. wasaaraka naaru xili baari maa yomba. mu koy melal ne sawara woowu taalal nañ ko ko moom ci baaru maa yomba tàbbal ko ca biir. nga xam ne nitu yàlla yëpp dañ ko njëkkante kenn ku nekk bëgg a def effort ngir génne ko ndax dégg nga assiru maa labraar ina assiru nga xam ne mboolem ñu baax ñi àndoon ak moom ñëpp kenn ku ci ne daa bëgg a yitte woo ba participer ci liggéey bi fexe ba defal ko dara sëñ bi ni leen bu dee du ndigal suñ suñ borom daal loolu euh, du doon loo xam ne lu may mën a ànd la nee na amu ci loolu rek soxna jaara waajuram rek doxe ko ginnaaw rek sëq sëq ci ñaari mbagg yi rek génne ko ni ko Ahmadou demal ci sa liggéey kon loolu moo tax nag journée ajjuma boobu moom lañ tuddee euh, journée soxna jaara su ne soxna jaara bu doy waar ndax soxna jaara soxna jaara Buso moom soxna may galas mu alaaji Fàllu Mbàkke di ko di ko jiite nga xam ne moom nga xam ne moom soxna jaara Buso moom moom moo yore moom moo yore liggéey bi ndax sëñ Fàllu Buso mii ma doon wax moom mooy boroom këram mu am ak moom njaboot ñoom ñoo jiitu ci suñ kanam ñun daayira xasida bi ak comité bi ñu topp ci ginnaawam nag ànd nag di liggéey journée boobu journée boobu euh, ci la ñuy yóbbu jàngkati xasida yi ci la war a préparer ay conférence dinañ invité tamit autorité euh, étatique yi ne ci Gabon yépp muy le préfet le maire président ensemble départemental imaamu raatibu maay mba ak ñoo ñëpp dañuy ñëw fekk sañ ci site bi ci àll bi ak le curé labbe bi nga xam ni moom fi mu ne nekk labbe nekkatu waaye ki yore responsabilité bi dafa nekk ci chef lieu région bi muy muy muy ci Banga kooku tamit dañ koy invité mu ñëw ci kër labbe bi moom it toog ñun ñëpp nu ànd na na labbee doon fekkee waaw na labbee doon fekkee jëfi sëñ Tuubaa ji ñoom it ñu di ko fekkee te ñoom sax am na liggéey bu yaatu ak labbe bu nu bëgg bu ñuy entamé di xool nu ñu mën a jàppalee ci archive ru labbe yi ndax labbe ay ahlu kitaab lañ dañ doon bind la sëñ bi doon def seen kanam la. waaw ñoom xam nañ ci sëñ bi loo xam ne moom xam naa wax gi day jafe waaye yaakaar naa yoonu murid tamit dara jombaatewu ci mën a am kon ku neex leen te ñoom te déggoog ñoom mën naa am ngay am ci ñoom dara journée soxna jaara ci lañ ci la ñuy defee tamit visite des sites maanaam ndax ci Mayomba am na yeneen xew-xew yu fa am maanaam am na débarcadeur boo xam ne ba tey jii ma nga fa nekk nga xam ne bi ñu jëlee sëñ bi Libreville joo ko ci gaal ba agsi fa lañ ko wàcce woon débarcadeur boobu euh, xam nga il bi nga xam ne fi la sëñ bi ne woon barab bi Kër Lab bi ne woon am montagne la ab xeer la bu kawee boo xam ne soo wàccee Jabarkaare bi da yéeg di nga yéeg près de 200 mètres wala mu jigee ko ci kaw foofu la foofu la cathédrale bi ne débarcadère boobu nag nga xam fi la sëñ bi wàccoon war nañ faa dem marqué ji loola wàccuk sëñ bi waaye war nañ faa dem it marqué ji euh, jële guñ fa jële woon sëñ Touba teg ko ci gaal di ko joow di ko yóbbu ci wenn xeer woo xam ne tey jii la roche lañ koy wax ci Gabon waaye moom la sëñ mu Ka di wax wiir wiir waaw waaw wiir wiir kenn nit dafa mos a dem waaye nag wiir wiir du barabu wàccuwaay gis nga ni ma la ko melalee c'est une roche benn xeer la woo xam ne su ndox mi nekkee marée baas xeer wi day génn su nekkee marée haute da koy mëdd léegi labbe bi ki nga xam ne moo mu initié pour ñu sànni fa sëñ bi commandant de bateau la boo xam da doon jógee Brazza da doon jógee Pointe Noire nga xam ne ca jo jamono Luango lañ koy wax di ñëw Mayomba ndax Mayomba ba ci Congo la dépendroon ci jamono seen li ñuy lekk lépp foofu lay jógee léegi commandant bi nag bi mu gisee bi muy ñëw foofu xeer wi day def obstacle day dox sa diggante ak ak maayomba léegi nag su fekkee da nga koy jubali bu ci gaal gi demee day toj gaal gi léegi nag commandant bi ni mu koy mën a identifier booba amuñu ay matériels yi ñu am ay radar ak yooyu day tax ci kaw cabine bi di séentu xeer wi su ko séenee nag comme comme gaal yi day am ko yore baax day yuuxu matelot bi ni ko viir viir mooy mu viiree pour gaal gi tourné bañ a dal ci xeer wi baat boobu nag ci la baatu wiir wiir jógee léegi bu baat boobu ci la baatu wiir wiir jóge waaye wiir wiir ab roche la boo xam ni bu nekk ci entre Pointe Noire ak Mayomba la nga xam ni kooku nag bi mu gisee loolu moom moo wax ni nag man gis naa pexe moo xam ni sëñ bii ngeen bëgg a sànq bu ngeen ko ko defee kay affaire bi jeex na nañ ko sànni ci roche bi ñu ni ko roche ban mu daal di leeral roche bi nga xam ni navigant yi ñoom xam nañ ko ñu ni ko loolu kay boo ko mënee loolu mën naa nekk ñu promettre ko ay neexal yu am solo moom mu d'accord ñu jàpp bis ni dañuy jëlee sëñ bi ci île boobu dem sànni ko ci ci roche bi diggante bi ñu koy jël di ko sànni ji nag sàmbalaw bi mi ngi fi léegi nag ñu ni suñ ko sànnee ci mbir mii ni mu ñaawee bu delsee da koy nett de te minimum moom am na ay droit am kon dem jël ko tëmbal ko ci biir ndox daal jëf ju ñaaw la waaye nañ ci tëmbalaale sàmbalaw ba ngir bu demee du ko nett di moom ci diggante boobu ñu gaawantu jël gaali bagage si sëñ bi yépp sol ci gaal gi yóbbu sëñ bi yóbbu sàmbalaw bi embarqué leen commandant boobu di leen yóbbu nga xam ni booba gaal yi gaawuñu ndax du gaawu moteur dañuy daw euh, des heures bi ñu àggee fekk roche bi nekk marée basse ñu ñu ñu sànni bagage yi di leen wàcce kenn par kenn waaye wàcce bi xam nga ci gaal goo xam ne mënoo accosté duñ taxaw dañ leen di bëmax rek fexe bañ wàcc nga xam ne ku ci ne yow yaa xool nooy def ba wàcc rek xam nga mbir mu doy waar lay wax da nga xam dañuy bëmax rek bañ daanu ci xeer bi ak ak bagage yëpp daanu ci xeer yi ñoom ñu wër xeer yi wëlbatiku delloo diggante boobu nag ci la commandant bi moom tàmbali def rapport am ni moom def na liggéeyam sànni na sëñ bi ci xeer bi il est telle heure kon fii ak mi waxtu ndox mi da ko war a mëdd kon moom actuellement moom faatu na affaire am jeex na ndax geneen gaal gu ko fi jëlee amu fi kon moom day dee rek jeex na mbir mi jeex na daal def rapport am daal di fermer rapport am da di dawal si nag jëm si Mayomba diggante boobu muy def loolu sëñ bi soññ na sàmbaloo bi ne ko gaawal gaawantul mu ne ko ci lu may gaawal mu ko gaawantul dajale bagage yi mu dajale bagage yépp teg fi sëñ bi mu ni ko sàmba jàmbat ko fa dara ni ko man de sëñ bi fi ne nii wàcce gi ma wàcceeg ndox mi ma daw te xam nga ndox dafay neerloo nit mu ànd ci xiif bu mitti sàmbalaw bi ba jàmbat ko sëñ bi ni ko man daal fii ne buñ moytu sax ab xiif dina ma rey sëñ fi tasi ko ni ko gestu sa ginnaaw bi mu gestoo mu gis ab bool buñ ub loolu moo tax man ci sama eh, xalaat soxna jaara bi mu ko fekkee fii ci ñaar rakkay ndar ci ci ndakaaru ci ñaari guddi ndakaaru yooyee ni ko Ahmadou bis bi nga bis bi la taxoon di waaj moom moo ñëw muñal te dem ci sab liggéey di ko ñaax mu dégg nañ ne ko sëñ Moussa Ka waxee ne gis na fa soxna jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daala la soxna jaara nag kon bàyyiwu ko benn jamono bay di ko fekk ci il boobee il boobee di ko indil ay xéewal sàmbalaw ba wëññi ko lu sëñ bi soññ ko ni ko gaawantul mu ni ko loolu sa sunu maam Boussa moo ko fi indiwoon woon muy soxna jaara moo ko moo moo ko indi foofee ca wiir wiir rose bi c'est c'est existant bu am bu yàggul rek yaa cinq ans ku ñu wax sëñ Mor Fass Diouf dinaa fexe sax ba nga amanteeg moom découverte mi ngi Touba mi ngi tubaa actuellement wala wala Dakar oh, moom ku ñu wax sëñ sëñ Mor Fass Diouf doomi sëñ Njaga Diouf bu Touba tu la cheikh maam cheikh bi la moom dafa ñëwoon nekk ak nekk naa ak deux ans ci sama kër Libreville benn bis mu xëy ni ma man de dama am lu ma jaaxal ma ne ko lu mu doon mu bi da koo feeñu biig ko dëkk bu ñu naan Siti Kama mu ne ma ndax xam nga Siti ma ne ko waa Siti Kama de benn île la boo xam mi ngi lang ak Mayomba ca la nekk mun ma foofu la ma te ci fa ci xalwa la génne daal di wut paasam tegu ci yoon di dem di dem dem ba Siti Kama ba mu àggee mu am fa semaine daal may woowaat téléphone ni ma sëñ Cheikh de man gis naa lu am na lu gën a yéeme ma ne ko lu mu doon mu ne ma sëñ bi de léegi wiir wiir la may yebal ma ne ko wiir wiir mu ma waaw wir wir de nee na ma dem fa ma ne ko wir wir sañ bi yomb te dem de mu ni ma waxal ma rek lu ci sa xalaat ma ne ko lu ci sama xalaat mooy nga dem maayomba ndax wir wir maayomba lañ jële woon sëñ bi yóbbu ko fa te boo demee maayomba ay béninois ñoo fa ay navigateur da ngay seet béninois yi fa gën a mag nga waxtaan ak ñoom dinañ la wax roche bi fi mu nekk ci entre Pointe Noire ak kii ndax ñoom ñoom dinañ ko gis ndax ñoom foofu dañuy nap sañ Mor dem bi mu demee nekk na fa lu war a mat euh, lu jige weer ba benn noonu non daa gisul sax ku ko fa nangoo yóbbu ndax barab ba mboolem ñi mu sa tànte dem fa dañoo faatu tubaab bi jéem nañoo dem ci roos boobu ba tàyyi dañuy dee léegi nag moom mu xëy rek gis ku ni ko foofa dem mën nañ faa dem xam naa ni moom sëñ moor dina ñëw fii leeralal la ko ndax mbir mu doy waar la ba tey jii moom sëñ Mor nee na ba ñu àggee ba waa ji yóbbu ko fa bi ñu demee foofa ndox mi courant bi ni mu def ak ni mu amee doole daf doon projet te gi mu yor nar koo dóor ci xeer te kon day toj kon dañ fi faatu foofu nga xam ne ko bi mu liggéeyantee bañ jógee bi ñu accès waatee Mayumba la mu ko war a fay dañu ko jox naa la ko àddee ndax sa sëriñ bi moo tax faatuwuñu ne ko ñun ni ñeneen ñi dee woon na la naroon a dee tey nga xam ne laajatu ko lam ko doon laaj lépp da ko may bu ko defee du ko defee kon kooku laa mos a gis man ci ci sama ñaar fukki ak juróom moom dem na bu wér a wér a wér moom ndax moom dem na te dem bi am na keneen ku témoin dem nga koo xam àndoon na ci gaal ga ku ñuy wax ku ñuy wax faal koo xam ne faal la mu tey jii moo bokk na bo kooku nag moom kooku nag moom daa nekkoon Congo bëgg a ñëw Gabon rek di jaar ci frontières yi gis benn ku yor gaal ni ko mën naa la yóbbu ba maayo ba nga demer de nooy demee Libreville moom mu ñëw fa nag di gis ku ko mën a dimbali ba mu mën a dem ba mu mën a dem Libreville rek far gis sëñ Mor di toog ca sëñ Mor ba bis bi sëñ Mor di dem ñoom ñaar ñoo ànd Fall la tudd mi ngi làmbar na ca ñi jiite ba ca la bokk. wa na noonu la demee noonu waaw boo dawee jëm ci rek soo dawee jëm ci rek da nga ciy dajeeg ay feex waaw waaw uh-huh. mm-hmm. mm-hmm. loolu sëñ Fallou Bousso def na ci ay effort ndax sëñ Murtada Mbàkke dafa dajale woon waa Gabon yépp ñu toog mu fab ko teg seen kanam ne ànd leen ak moom xam nga nit ñi tamit pour nga ànd ak ñoom euh, léegi nii dañoo am ay xalaatin yoo xam ne euh, yu dëppawul ak philosophie yoonu murid la yoonu murid topp lañu xam topp ku sëñ bi jël jiital ko sa kanam ngeen topp jàppale ko à 100 pour cent léegi loolu nag xaj na ci jamono jooju jafe woon na ci moom moom def na ci ay effort xam naa ni résultat yam ci am bariwul lool mais nag def na tuuti euh, li li nga may laaj ni journaliste euh, bu ñuy wax Yves Laurent laaj na ko euh, comité bi nga xam ne ñoom ñoo organisé woon ci ma ci Gabon waajtaayu màgg rawaayu waajtaayu màggal gi maa ngi toog seen wet ñu wax leen ni leen yéen lii ngeen dépense ci caravane bi yëpp ak li ngeen def lépp te man gisuma dara loo xam defal ngeen sam benn bant bu ñu sampal sëñ Touba ci benn barab amut te loolu man confirmé naa ko mu ne ko nag kooku dend ak yéen yow moom confirmé ne ko moom xam na ni loolu maa moom wër nañ pendant de semaine fu ñu dem danaan ma taatu garab gi fi la sëñ bi toogoon di ma joxoñ ay barab waaye fenn fu ñu identifié def fa dara amut léegi nag euh, moom tontu na ko nam ko nam ko xalaatee waaye li wér te wóor ba ba mu ko tontoo ba bis ki tey jii tamit à part effort yi nga xam ne moom la caravane bi di def dara amagut. léegi nag caravane bi nag eh, effort yi nga xam ne ñoom ñi ngi koy def mooy fexe nañ ba identifier sud fexe nañ tamit ba am ay euh, entente ak autorité ya fexe nañ tamit ba wax ak sëñ bi euh, sëñ Moutada sëñ mun Muntaxa ba mu ni nañ ci góorgóorlu te jàpp ci dinañ ci dajeeg tawfeex sëñ Touba su ko defee kon ñi ñi ngi ciy woo murid yëpp lu jafe la nag ndax xam nga soxna Awa tukki 800 nangam kilomètres. maa ngi lay nettali rek ni la en 2000 borom réew ma muy président Omar nga abaloon na sëñ Mourtalla avion may ko terrain ci ci ci digg viilu Mayomba ñu ànd sëñ Fallou Bousso loué ñaari avion ñu wàcc ba bari na ñu fekk woon voyage boobu Cheikh Ablaye Dieye àndoon ci ay ñoom sëñ Sambay ak ñu bare bari àndoon nañ ci voyage boobu waaye ban demee ba mu teg fa aw xeer bisub keroog la fa murit mujj a jaar ca pàkk boobee di fa dagg ak ñax léegi nag loolu loolu tax na confiance ñoom bañ war a am ci ñun. Euh, avant avant avant terrain boobu 20 hectares la président boo nga njëkk a jox sëñ Moutala ci ci sës ci aéroport actuel aéroport Libreville zone bi nga xam moo ëpp valeur fi mu ne nii ci ci Gabon 20 hectares 20 hectares yooyu tey jii ba tey. man gisoon naa sëñ laa defarloo benn jëm bu ñu naan Pape Samba ay plan ba mu indi affiché plan yi wane ko ci kanam taalibe yépp ñu gis ko waaye ba tey jii ab xeer wa mu fa tegoon bisub keroog lañ fa mujjee jaar di fa def dara. léegi nag moo tax karawaan bi nag ñoom duggatuñ ci ay cadre daayira wala cadre dara ay nationaux lañ ay gabonais lañ euh, jóg nañ sukkandiku ci ay kayit yu normal topp nañu barab yi nga xam fa la sëñ bi jaaroon autorité fa nekk ñu laaj leen suñuy droit la li nga xam ne ñun. président Mor Bongo dañu mayuma leen nationalité pour ngeen di ko def ay quatre séjours dama leen koo may ngir ngeen too mbirum sëñ Touba liggéey def fi dara. moo tax nag kon ñun fexe nañ ba identifier sud di autorités yi dëkk bu ci nekk tamit bind nañ leen ay lettre won leen ni leen ñi ngi réclamer li nga xam ni patrimoine sëñ Touba la ngir mën faa def dara su ko defee kon. ñi ngi ci am jàppandal bu wér a wér do maanaam dossier yëpp mi ngi nekk ci cours mi ngi il est mi ngi dox ñi ngi ci ànd ak ñoom ñoom tamit euh, surtout maire Mayomba moom ñëw na Touba ci jamono Alaaji Baara xel mën na cee dal ép ak ah, mhm, mhm. waaw parce booba xam nga murit mun a def dara laa taf aloo say am bi xëy na aussi fal istum sàttoon fi xabooni sax ni maanaam am murit mënut a def lu dëppoowul ak lu ñu ko digal. bu ko defee kon ñun mun nu fa dox lu ñëw wax ko sëñ Muntaxa boobu noonu mooy ñaareelu yoon ndax dañ ko fekk woon dañ ko fekk woon fële ca dëkk bañ naan. ci booru tiib lañ ko lañ lañ fekkoon lañ njëkkoon a fekk sëñ bi bañ bañ demee ñu wax ak moom woon nañ ko tamit poroxaan waaye dañoo bëggoon confirmation fii ci Touba moo tax ñu ñëwaat àndaat a yéen defaat loolu waaye demoon nañ fekk ko mu soññ ni ñu feddali ko ni ñu di ngeen ci dajeeg tawfeex sëñ tubaa bu ko defee loolu nag euh, bañ jógee nag bañ jógee nag jëm ci loolu nag. am nañ ci yàqin ju wér a wér ni dinañ ci ànd ak mbooleem taalibe dañ ci ànd ak mbooleem bonne volonté yépp ñi murid yi ñu ñëw jàpp ci jàppale ñu ci ndax ñun kat xaj na semb nañ loo xam ne euh, ex doole kàttanu doomu aadama mënu ko beneen bi ci des mooy jafe-jafe yiñ ci am euh, ci ci defar ci deflu mel noonu Gabon daa mel ni tamit seytaan tamit du nangu defet bu toll noonu bu ko defee kon nañ xam ni du yombut waaw te jii sax maa tey jii maa ngi lay révélé ni la labbe yi nga xam ne 1888 bi sëñ Touba sànce Touba ñoom it ci lañ sànc cathédralu Mayumba ci même année bi maa ngi lay wax ni la depuis 2010 kenn nañ seeni porte tëj kër labbe bi dem seen yoon ku yàlla bind nekkatu fa te foofa nit ku ñuul mus faa nekk labbe tubaabu fa Rome ñoom fa daan yabali nit. ñoom nag bi leen journaliste RFI bi laajee lu tax ñu tëj seenu kër labbe ba daw ñoom nañ ni jinne ci seen bopp daal ñoo jëflante ak ñoom. waaw waaw mën nañ bu bu bu wér a wér waaw moom ñoom moom du yàgg bañ dellu si fa ndax ginnaaw bu fa làbbay jógee am na benn société forestière boo xam sax dañ faa ñëw ñoom gis barab bi mu libre rek ñu baaje ko ngir di dagg ay dénk ci àll di ko fa jóor waaye ñoom ci ñaari at lay toll wala du lu teg tuuti wàcc nañ fa seen i ak yëpp ñoom it ak seen matériel yi ñu yëpp ñoom it daw nañ wàcc ko fa site waaw waaw mu di waaw. Mm-hmm. xam nga soxna Awa ñun bi yoon bi njëkkee dem ni dañuy fanaan ci île bi bu ñu fa waa dëkk bi bu ñu fa oto yi bëggee wàcc waa dëkk bi dañ ñu fi bu ngeen fa wàcc jinne di rey waaye ñun ñu xam ni xasidee sëñ Tuubaa yi fu ko waay yóbbu ndax booba ñu ngi ak si jaale batu ràqe ak ak yeneen i xasida yoo xam ne wóor nañ ne. lii aar Touba gi aar na maa yomb nga xam ne maanaam bañ fay fanaane wóoruñu woon lu ñu fay fanaane danoo dem rek ngir xam ni fii sëñ bi doon na fi nekk te làbbe yi daw nañ ko te ñun lii suñ patrimoine la war doon kon war nañoo war nañoo def ay gestes yoo xam ni dinañ xam ni déterminé nañ nga xam ni waa dëkk bi ci boppam bi ñu fi njëkkee seen luy xuuy ci île bi guddi ñoom dañoo yaakaar nañoo dañoo jummi ginnaaw bi nag ci lañ xam ni sénégalais waa kër sëñ Touba ñoo fa nekk ba ñoom ñu ñëw di ñu fa fekk si xam naa daal li wétta wóor boobu moom fa lañ defee première édition def nañ fa deuxième édition édition bii di ñëw fa ko fa seenee defee te tamit euh, ànd ko ak murid yëpp waaw. Hmm. waaw soxna Awa balaa boobu maa ngi wax xamle ni rek Gabon euh, murid yi fa nekk jàmbaar lañ ñu ngi góorgóorlu. ndax tey jii am nañ fa lu mat ñeenti daayira yi sëñ Touba yoo xam ña ngay liggéey di jàngi xasida di dajale seen addiya di ko indi Touba di def ay effort liggéey bi moo metti rek ñu ngi góorgóorlu sax bu baax a baax liggéey bi daa metti dafa mel ni tamit du liggéey boo xam ni waa Gabon rek ko moom ñun am ñun war nañ koo woote waaye fépp fu mu nekk ci àddina bi tamit war nga cee def sa loxo ci ci ay moyens ak ci présence ak lépp xam naa ne ku ñu woo ba nga ñëw ba gis la fa ne euh, leneen la ca des dina dina yomb. waaw bu ko defee euh, loolu daal ñu ngi koy soññee ñëpp ñi nga xam ni bëgg nañoo ñëw ci karawaan bi ñëpp tamit ñu xam ne ku bëgg ñëw ku ne rek soo gisee tax ñu teel ko wootee dañoo bëgg ñi bëgg ñëw ñëpp mën a copier seeni i deux seen premier premiers su passeport ak seen benn photo d'identité ah ñun am na ay numéro yoo xam ne euh, dinañ leen ko dugalal maanaam ñu mën a ñu mën a xool ñu ñu mën ñu cee contacter bu ko defee loolu dina mën a dina mën a tax dina mën a gaawal liggéey bi ci ñun am na numéro boo xam ne mi ngi nekk double 0 241 ngay def daal di def 07 65 88 16 ak beneen numéro bu nekk 05 13 44 31 ak beneen numéro bu nekk 02 99 99 13 waaye waaye numéro bu ci nekk tamit day ànd ak double zero deux cent quarante muy indicatif bi su ko defee loolu dina mën a tax ñu mën ñoo contacter euh, bu ko defee ñun dinañ leen wax yoon bi ñuy jaar ba mën a dugal seeni i dossier ndax comme visa yi ñun dañuy dajale yépp yóbbu ko ministère de l'intérieur mu accordé leen ay visa kon euh, nga xam dañuy ñëw ba ci aéroport ba rek ñu door a tamponné seeni visa euh, loolu kon dina laaj ñu teele ko beneen bi des tamit comme ñiy nekk Sénégal te bëgg a ñëw daanaka genre aj lay doon ndax loo xam war nga dagg ay billet avion war nañoo transporter nit ñi pour Mayomba ak yooyu yëpp kon nit ñi loo tax ñu bëgg ñu teel koo yëg ba teel euh, remplir euh, waa conditions administratives yooyu bañ mën leen a taxaw ci lu mel noonu ñu mën a xam tamit nombre nit ñi ñëw ngir ñu mën leen a taxaw baax ci nu ñuy mën a dalee ak yooyu euh, euh, te distance bi ni mu soree nga xam ni war nañu louer ay bus climatisés yu baax yoo xam ne dinañ mën a déplacer nit ñi ci seen feex su ko defee loolu suñ teelee xam buñ teelee xam nit ñi ñëw dina mën a jàpp ndalal waajtaayu waaw kon kon daal loolu lu ci am solo la beneen bi ci des mooy euh, ñi ngi nuyu soxna jaara mi nga xam ne mooy jëw jëwriñ ji di nuyu ña nga xam ne ñooy communauté bi nga xam ne ñoo nekk ca Libreville muy ñoom sëñ Bado Seen sëñ Xaasim sëñ Alaaji Bey ak mboolem membre daayira xasida bi ci nekk ak communauté bi yépp daal ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit ñi nekk fii Sénégal di ci jàpp ñëpp di la nuyu yow tamit soxna Awa 24actu point com Eh, ak sa caméraman technicien yi yëpp ñu ngi leen di nuyu te den leen jaajëfal ci disponibilité bi eh, xam naa ni ñu ngi sant bu baax a baax daal. émission ngeen wax ni ko émission bi incha allah daañu ko gën a topp naa gën naa def ak yéen yeneen jotaay yi gën a bari incha allah di jël mooy xam ne ñoom ñun amal ñu mën ñoo tënk ci sur caméra bi Cheikh naa Serigne Sall bi ak Serigne Sall bi ci montage bi xam naa di gërëm ñi nga xam ne ñu doon bàyyi ak yéen wax